pause. bon en fait du woon pause parce que xam nga musique. Mm, dafay ànd ak carrière. donc carrière musicale bi da ngay ànd ak moom ba benn moment. Mhm. et puis mu am aussi ay yeneen opportunité yoo xam ne day day ubbeeku si aussi ay yenn blocage da ciy am. xam nga ay yenn gàllankoor te yooyu ba day mën a jouer ci li nga xam ne mooy carrière bi. Mhm. bon ñun en 96 la ñu génne woon suñu premier album je me avec. Euh, Youssou Ndour moo ko produire woon. Mhm. donc même dans album boo leen ko dégloo la voix de Viviane instant boobu Viviane Ndour moo doon def kër yi. Mhm. donc euh, Bouba Ndour sax ma nekkoon le manager. yàgg na je parle de 94 95. donc 96 l'album bi génn par contre. Euh, premier album bi. donc euh, ensuite on a fait un autre album boo xam dañ ko autoproduire ñun suñu bopp. Mhm. parce que après le premier album on s'est dit écoute mënut ñu nekk di defal di dem ci studio nit ñi duñu produire mhm. boo xam ne day def production musicale ak yooyu. donc on faisait nous-mêmes nos ak yooyu yëpp quoi donc euh, voilà fa la ñu tur commencé def euh, euh, le deuxième album. foofu moom boobu moo am nag Salimata bi. Mm-hmm. on a c'était un truc euh, chanson d'amour boo xam ne dañ waaw <laughs> voilà ça a donc ça nous a fait vraiment mm-hmm. tourner partout un peu partout si mm-hmm. Afrique sax. def jot nañ dem ci ay dëkk africaine yu bari quoi donc vraiment ça a été un tilt. après on s'est retrouvé on a fait un autre album mm-hmm. boobu nag ñu bëri xamuñu ko se l'album Tooñ qui était beaucoup plus puissant sax à cette époque mais après par la suite dañu am des opportunités de génn quoi mm-hmm. donc euh, génn boobu moo indi une mm-hmm. partie dem aux États-Unis donc c'était Tonton Mac il y avait aussi Sugar Flavor il y avait Babs euh, ak euh, Salt je pense donc man ak sama frère parce sama frère il était danseur Euh, donc man ak moom ñu dem Italie. ñeneen mhm. ñi dem États-Unis donc loolu moo indi cassure bi en fait c' une pause. mais ay opportunité voilà ñu mag moom fu mu nekk léegi moom. moom ba léegi dafa demoon États-Unis dellu si waat. donc quand il a fait sa formation en électronique réalisation ak yooyu. mu ñëw liggéey euh, au niveau de la TFM. comme réalisateur je pense que sax temps yi moo direction technique bi. Mm-hmm. mu TFM. voilà merci beaucoup euh, camarade je dire camarade acteur mag ma ñëw ci caméra bi rek ça fait plaisir vraiment donc yéen da ngeen jékki-jékki comme ni nga ko waxee ngeen dem yéen ngi seet ay business instant bi yéen comme loolu dafay wane ne rek par exemple nekk ci benn milieu par exemple rab bi rek ne ci yeneen comme ni ngeen def nii nii xam naa bu la dugal photo moom gars yi duñ moom photo bi ma ko may. <laughs> gënoon naa rag du ma may photo bi instant bi man moom après bi ma gisee image bi dama ne non ma ñëwaatee xool dama ne non dama ne non nekk lu yàgg yàgg voilà mais seen groupe bi nekkul groupe bu neex aussi. oui parce que c'était bien parce que ensuite. am moom la ñu déggante ba léegi. oui bi ma yegsee fii parce que ça fait plus de dix ans dellu moom aussi en mm-hmm. en Italie euh, au Sénégal. Mm-hmm. donc bi ma ñëwee le premier jour dama woo sama manager Julien Montero. parce que moom lépp lu ñu doon def il était derrière quoi. donc il mettait son argent il faisait tout quoi. Euh, donc bu ma ko woowee dem kii mu ne ma ah kañ ko dellu si après juste ñu woo tonton mag. comme on s'est retrouvé chez lui. bon en dîner waxtaan xam nga mm-hmm. woo gars yi nekk États-Unis unis les autres là. Mhm. donc euh, on s'est même dit peut-être est-ce que ñu def benn euh, benn. comeback créer benn son bu ndaw rek <laughs> pour foo noonu quoi mais bon on est en train d'y d'y penser. peut-être que on va le faire. Mhm. mais bon xam nga léegi comme ñun ñëpp ay mag la donc on a d'autres. Euh, d'autres activités peut-être et puis le temps aussi ne le permet pas mais on va on va essayer de voir parce que avec la technologie bi am mën nga foo mënti nekk mën nga fa def son quoi mhm. donc gars dañ la koy envoyé tu le fais voilà mhm. donc c'est pour dire qu'on a toujours le rapport on a toujours le rapport voilà et on est en train de de voir mhm. Sénégal métti na trop pour def ay activités c'est très très difficile en une semaine bi ma fi nekk j'ai vu un peu pour voir déjà le déplacement rek waaw déplacement rek ça perd beaucoup de mm-hmm. temps tu perds beaucoup de mm-hmm. temps nit ñi ils ils vont au ralenti c'est métti na la en tant que réalisateur aussi yaa ci yaa ngi ci euh, fee nga nekk en Italie yaa ngi ci yëngatu oui je fais beaucoup de réalisations surtout ay clips mm-hmm. des vidéoclips Euh, je fais aussi j'ai fait benn série bu tudd X Live donc c'était juste benn essai la woon je l'ai fait avec des amis benn association bu fa nekkoon buy def des jeunes acteurs donc on a fait six épisodes je pense après boo leen bindee X live ngeen ko gis donc man maa def euh, réalisation bi yëpp je l'ai écrit je l'ai réalisé mhm. bokkoon ci caméraman yi mhm. je l'ai monté mhm. effets spéciaux yëpp man maa ko def quoi donc c'était juste un essai sur loolu Et on est en train de voir avec euh, votre PDG. ndax mën nañu initier aussi beneen série au niveau de l'Italie. et puis aussi travailler dans dans l'audiovisuel. D'accord. Voilà. Euh, par rapport à ça aussi pourquoi ne pas venir au Sénégal créer quelque chose par exemple une école ou bien comme yaa ngi nekk ci biirum réalisation bi. ngeen jéem a créer ah, quelque chose boo xamante ne ni dina servir pas mal de personnes. à vrai loolu moom indi en fait. je suis venu pour voir ma bu mm-hmm. xawoon feebar tuuti mais mm-hmm. c' était euh, le but c' ñëw fi xool lan lañ mën a def si wàllu cinéma sax parce que c' était juste pour yëkkati niveau bi tuuti. Mm-hmm. pour def des films de haut niveau yoo xam ne peut être nit ñi dinañ ko mën a jaay à l' parce que je vois que nit ñi ils bougent beaucoup dans ce sens là. mais niveau bi ñu nekk c' est niveau théâtre affaire yooyu ay séries xam ne c'est énorme mmh, donc on te parle de de chiffres yoo xam ne boo ko déggee da ngay da tiit si benn film buy def quatre-vingt-dix minutes mmh. donc yéen vous faites des yoo xam ne c'est trop long mmh. vous perdez beaucoup de temps ci yenn scène yoo xam ne c'est pas la peine yooyu mënoon nañ ko dindi ak yeneen ak yeneen donc l'idée c'est ça de voir ndax mën nañ fi teg benn école cinématographique wut ay partenaires extérieurs yoo xam ne ils mettre les moyens. D'accord. Et puis bon, ils travaillent. Voilà, merci beaucoup, Machallah, euh, Monsieur Camara. Donc, euh, bonne initiative, yàlla na ko yàlla mottali incha allah rabbi incha allah nga def ko yàlla def ko mu réussir yàlla baax na yàlla na ko yàlla def. ay choses Boubacar rapidement rek euh, si vous avez des questions. ak tuuti aussi. Ah, déjà déjà c'est un plaisir. <laughs> plaisir plaisir vraiment de partager euh, nga nekk je dirais même pas un grand frère suñu kilifa parce que su ma déggee Salimata c'est c'est c'est quelque chose qui nous a bercé suñu xale 94 je pense qu'on avait quoi dans les deux ans trois ans. ah <laughs> oui c'était plus de moment. ñoo ko doon ñoo ko doon ñu ko doon wéyal. donc mu mel ni yaa ma mag laa j'ai l'impression que tu ah, ah bien mais il est jeune mm, ah. c'est l'environnement peut-être c'est l'environnement déjà. Euh, ku bëri xaalis quoi moo tax. ah su bëri xaalis da ngay xaw a kii quoi. soo bëri xaalis da ngay mel ni déjà c'est l'environnement peut-être vue d'extérieur ak vue Sénégal peut-être mais quand même euh, mu nekk benn musique bu ñu yàgg a dégg. effectivement voilà. donc tey ñu toog euh, quelque bokk ci loolu tonton mag déjà nga dégg ko rek tu sais que c'est pas c'est quelqu'un qui a beaucoup investi ci ci ci ci ci ci ci art au Sénégal donc euh, c'est c'est un plaisir mm. maintenant euh, tout à l'heure nee nga yaa da nga def benn reconversion c'est-à-dire yaa ngi xalaat ñëw Sénégal euh, sa investir au Sénégal ci côté cinéma te ñu gis ni tamit au Sénégal ya y a des maisons de production qui sont là. te su ñu demee bay euh, le cinéma au Sénégal ak cinéma nigérien donc ya y a une évolution. donc am na jóge nañ deux point A ñoo ngi peut-être Z. jegeguñ Z mais peut-être dégg ñu jege ko. Mm-hmm. parce qu'on sait qu'en Afrique les Nigériens. Euh, sont en avance par rapport au cinéma. donc on voit maintenant il y a Evan Prod il y a Marodi c'est des gens yoo xam ne tey. cartonnent. Il y a des chaînes comme Canal Plus et autres. Mm-hmm. Donc on voit qu'il a carrément une avancée au niveau du cinéma mm-hmm. au Sénégal. Mm-hmm. Donc est-ce que tamit yow pare nga peut-être pour mettre au même pied que ces maisons de production Marodi ou Evenpop ou autres. bon je pense que oui parce que nit ki booy def benn booy def dara tamit da ngay xalaat ñu à un niveau boo xam ne. Euh, ou bien nga tolloog ñoom wala nga dem un peu plus. parce que li ñuy xalaat ñun c'est beaucoup en au Sénégal c'est vrai y a la technique ah yi ñu ngi liggéey mm-hmm. mais si côté effets spéciaux yi ça manque beaucoup mm-hmm. donc pour faire des films de haut niveau je mm-hmm. pense que effets spéciaux yi il ñu liggéey si bu baax mm, donc waaw donc euh, je pense que ak très dimension yi ni ñu koy defee xam nga modelage yi des fois da nga ilo imaginer gars yi nañ ko def naturel pour le moment lépp dañ koy filmer naturellement y pas d'effets spéciaux yoo xam ne mën ko ci hmm. donc yooyu ça joue dans le cinéma donc ce sera peut-être ñun apport boobu la indi mu doon un plus par rapport ak li fi nekk d'accord mais par rapport à notre culture on sait tous que par exemple euh, maison de production comme Evenprod hmm. mu ngi imposer benn benn style de cinéma boo xam ni peut-être ça ne ça ne relate pas avec notre propre par exemple je peux citer l' de Cœur brisé. tey bëri gis nañu si peut être série bu gën bu gën a recevoir ay critiques. Mm-hmm. parce que l'habillement des fi mm-hmm. euh, la façon de se comporter. Mm-hmm. c'est affaire de mœurs. donc euh, si si si un peu à l'encontre de notre culture. est ce que tey yéen vous vous venir faire comme cinéma peut être bi fi nekkoon. autant temps de Ousmane Sambène <laughs> exactement ou peut-être euh, parce qu'on sait tous que tey pour nekk au niveau international mm -hmm. faudrait aussi indi loo xam ni ça colle avec euh, euh, cinéma toll donc on va plus parler de culture bien vrai qu'on va essayer mhm. un peu de maquiller un peu mais on va carrément amener quelque chose de naturel mhm. quelque mm vraiment international oui je pense que loolu mooy doon li nga xam ne mooy gën a am importance parce que c'est vrai que culture Mm. bon soo gisee waa gars yi def cœur par exemple c'est parce que la demande c'est ça mm-hmm. nit ñi loolu la ñu bëgg gis tu vois donc ñoom ils ont profité de ça pour avoir notoriété am xaalis mm-hmm. am retour mm-hmm. bu doon par exemple am na ñuy def théâtre ba léegi à l'ancienne mm-hmm. mais est-ce que ça marche les gens ont besoin de voir quelque chose boo xam duñ toujours c'est vrai que c'est pas la réalité qui colle mais c'est une fiction c'est les gens ils rêvent de devenir ça donc euh, je pense que loolu aussi ça va jouer ñun tamit on va voir ce qui va payer c'est vrai que on mais je pense que dans le cinéma tout est permis. waaw tout est permis tu peux mettre la culture en même temps boole ci li nga xam ne moom mooy des trucs d'actualité et puis ça mm-hmm. marche. Mm, ça marche la difficulté mooy peut-être l'écriture mm-hmm. parce que j'ai vu euh, dans la plupart des séries yi ma seetaan l'écriture dafa des. Mm-hmm. parce que dafa mel dañ koy bind au jour le jour. tu vois non alors que scénario ko war a bind de A avant nga koy commencé tourner waaw ah, normalement c'est comme ça que ça se passe ba mu jeex nga doog ko jël jox ko réalisateur mm-hmm. Mm-hmm. réalisateur bi fait des retouches pour xool ndax c'est réalisable mm-hmm. ak yooyu bu dee am na ay effets spéciaux on cherche quelqu'un qui peut le faire nga doog a commencé tournage d'accord mais fii c'est le contraire tu commences à tourner et puis au fur et à di hmm. augmenter scénario bi d'accord loolu moo tax des fois ngay gis ay failles yu bëri dans hmm. on l'a vu avec euh, par exemple il y a, il y a... Pod et Marichou. voilà mm -hmm. peut-être durée na date boo xam nit ñi dañu lakk lay jeex. et on sait aussi au Sénégal à on sait au Sénégal du moins que série bi peut-être ça apporte. benn aspect pécuniaire y a les partenaires. les voilà gens se continuent les gens se bousculent participer euh, la mhm. série donc dañuy yokk ñoom pour mu bañ a jeex. Mhm. et que fii dañuy def benn série benn saison. mais deuxième saison bi. Mhm. on l'écrit en même temps que affaire di. affaire bi di dem c'est ça. raison pour des fois da ngay gis ba première saison mooy jàll. deuxième saison peut-être day commencer am problème. effectivement on l'a vu avec euh, benn série bu tout euh, kii de Raison Proche je pense je me rappelle plus le nom mais. première première saison bi rek moo jàll. mais mm. deuxième saison bi jàllul parce que y avait un souci de partenaire. Mm. y avait souci avec les artistes aussi qui demandaient à avoir un cachet plus important. Mm. donc voilà moo tax benn saison mooy jàll mais deuxième saison. du jàll mais gis nga par exemple en Europe ñun expérience bi ñu am actuellement ci série la première saison en général du ëpp six wala dix épisodes maximum. ils font tout pour yemale ko foofu mu nekk genre mini pour voir le retour mhm. quand ils vont voir le retour maintenant si la ñu nag toog réfléchir mën nañ toog deux ans di réfléchir aat pour beneen série mais c'est une réflexion boo xam ne danga war a xam fan la fan ngay commencé fan ngay jeexee quoi. Hmm. mais ba chaque scène voilà voilà chaque scène dafa war a avancer loo euh, narration bi quoi hmm. récit bi. bu dee am na scène boo xam ne boo ko dindee après nga hmm. seetaan ça ne change rien ça veut dire que scène boobu jarul woon tourné. jarul donc c'est des techniques yoo xam ne peut-être gars yi yeggaguñu foofu mais bon ça. mais ils ont du mérite quand même. ils oui, parce que y a eu une ci cinéma. Mm. am na fu ñu ko jëlee am am na fu ñu ko yóbbu et on voit que maintenant les gens sont vraiment par le cinéma. tey su ñu demee ba les artistes yi jugee dans les d'autres pays d'Afrique. ñëw fii di ñëw Sénégal pour participer à des séries cela veut dire qu'il y a euh, benn mm-hmm. avancée bu bu bu mm-hmm. cinéma def. voilà merci beaucoup Bouba macha allah si question bi am na solo c'est pertinent Camara aussi si tuuti. soo amee mm-hmm. question rapidement. waaw euh, son boobu Salimata mhm. frappé na ñëpp juróom malgré ñaata nga woon boobu est-ce que amoo woon un an <laughs> xaw ma deux ans xale bu ndaw laa woon vraiment mhm. mais daf ñu topp dafa nekk son boo xam ne daf ñu topp durant toute notre vie vraiment mhm. parce que dañuy dañ dañ ko daan dégg Salimata Salimata macha allah tey nag aussi ma am opportunité vraiment euh, bokk bi yow tey plateau dans les locaux de Keur Ndanane TV je te dis rek si tu es la bienvenue macha allah tey moom dama am mbégte vraiment euh, parce que tey ba toog ak tey ak docteur Mack vraiment euh, je me je je je me m'attendais pas vraiment. man dama kontaan daal ça mm-hmm. ça me ça me fait ça me fait vraiment un grand plaisir. aussi waaw ñu bokk yow tey plateau Café Show Plus. Mm-hmm. vraiment ma am mbégte aussi ak kontaan li may laajte rek mooy. pourquoi euh, pourquoi docteur Mack tonton Mack. xanaa yéen ñaar dañu la bokk ndey ak baay. waaw ñu bëri nañu ko wax mais comme je suis plus beau que lui. dama ko doon mais oui hein je suis plus beau que lui. bu ko dégg nag. plus beau que lui. plus beau que lui. Voilà. Bon, en fait docteur bi c'est parce que man j'ai j'ai fait une formation euh, dama génne au niveau de de la fosse mm -hmm. euh, section industrie def euh, biologie mm -hmm. ak biochimie donc euh, bi ma amee bac ma dem ENSUP j'ai fait deux ans à l'ENSU. Mm-hmm. après doo ko dem defi sciences naturelles mm-hmm. au niveau de l'université mm-hmm. donc moi sama vocation c'était pour être médecin médecin docteur donc euh, malheureusement bi may ñëw j'avais dama dépassé woon deux ans pour mën a def médecine moo tax ma dem defi sciences naturelles mais euh, kii bi mu ngi fi woon ambition ñëpp déjà sama waa kër ñëpp dañu woon waa kii docteur lay doon kii doon donc le nom est venu de foofu la docteur mag bi quoi

laaj mooy par exemple yéen seen empreinte bi nga xam ne da ko wane woon. mu mhm. soppoon leen vraiment. Mhm. bëggoon leen mhm. par exemple ci ay mariage wala dem ay baptême yi tout ça ko fa woon xam li ñuy wax mais son bi xale dañ ko daan jël di ko di ko di ko ko di ko. di ko fo mooy may laaj léegi lan moo leen lu moo tax ngeen jékki-jékki. tasaare affaire xaalis moo leen boole. wala seen ménageur moom mënatul woon wala. non en fait euh, du woon tasaare sax mais bon euh, mooy comme li ma wax au début dañoo dem ba benn moment xam ñun moment bi ñu doon def musique y que dañu doon am bi peut-être mm, ñu fu ne ñu tourné fu mais le retour bi si ñun en tant xaalis mm. bon c'était dafa tuuti woon bokk la gars yi booy yi léegi mm. booy yi comme may ñoom gaaka ak yooyu donc mm-hmm. que moment bi moo dem donc ñun bu ñu demee ba benn âge bi da ngay commencer tamit di bëgg am dara pour yow te ça ne suffisait plus lu ñu doon am au de de la musique il fallait que ñu gisaat yeneen opportunité donc mais boo demee Europe tu as juste envie de def dara dellu si mm-hmm. mais malheureusement xam ngeen Europe lu mel mm-hmm. da dem donc y a d'autres lu lay gàllankoor ba xam ne dootoo mën ñëw année yi di dem mm-hmm. après donc musique bi dem mais c'était juste pour dem ñëwaat Mm, d'accord waaw ah, malheureusement boo demee ñu bon pour ce changé voilà sa yëpp changé pour ce qui est de Salimata en fait ak musique bi si boppam mm-hmm. ñun suñu bopp ñoo ko composé en fait mm-hmm. ñun ñoo composé mélodie bi parce que mm-hmm. suñu particularité en fait au niveau de Sunu Flavor ma nekkoon on faisait beaucoup de mélodies on faisait beaucoup de mélodies si si son yi ak yooyu c' était pas hardcore boo xam ne. Mm-hmm. da lay te da lay sonnal ak yooyu donc c' était beaucoup plus mélodique. Mm-hmm. pas mag ñëpp ku ko déglu rek da ciy sentir boppam. Mm-hmm. donc euh, je pense que loolu moo nekkoon suñu touche. attends une dernière question. Euh, euh, Salimata Salimata da ngeen jël tur benn tur rek Salimata wala dafa quelqu'un quelqu'un qui vous a marqué. Oh oui en fait kenn moo nekkoon suñu jabaru manager. Ah, d'accord. Ah, accord. moo nekkoon Salimata waaw moo nekkoon Salimata waaw donc euh, fa la ñu inspiré wu en fait parce que moom jàppale nañu ci affaire yu bëri bi ñuy démarré moom ak suñu manager Julien Montero. Hmm. sonaloon nañ ko trop. donc euh, par rapport ak ça dañoo inventé waale beneen. Mhm. Euh, beneen approche d' amour boobu. Mhm. boole waale ko ak moom figure bu mu nekkoon. doo ko def Salimata. d' accord mais. TFM TFM aussi du réel bi nekk foofu réalisateur bi réalisé foofu nekk fa réalisateur mhm. damay laaj ba xam ne yéen seen yéex yéen yéen a ngi vous avez vous êtes en bon terme oui très bon terme amoo leen benn mhm. non non amuñu benn problème léegi yéen euh, par exemple monsieur euh, docteur Mak li ma lay laaj mooy euh, jeunesse bi ñi mhm. nga xam ne parce que yéen bokk ngeen ñi nga xam ne vraiment ñoom ñoo ñoom ñoo jóg xale yi yooyu yéen a jël yéen a relevé waaw yéen a relevé défi bi par exemple xale yi nga xam ne ay rab comme par exemple duurkat yi ngaa ko plainte dip mën nañ ne yéen yéen leen yéen leen yokk ci daal vraiment inspiré leen vraiment ba mm-hmm. tey ñu dugg si milieu mm-hmm. rab bi vraiment léegi yéen mm-hmm. euh, moment yooyu noonu ngeen nekkoon li ngeen ci euh, ñoom ngaa ko par exemple ñiy lekk ñoom ci ci milieu rab bi est-ce que yéen moment yooyu seen jamono vous amoon ngeen la possibilité boobu aussi non justement moom laa doon wax ni donc euh, ñun lu ñu doon may chance mooy notoriété bi ak nit ñi. Mhm. donc on avait aussi les contacts. parce que mhm. képp ku ñu gis ba bëgg ñëw def ñuy ubbil ay opportunités ay contacts yooyu mais l'argent vraiment bu doon ñëw. Mhm. c'était pas ça. comprendre. Mhm. donc euh, c' était pas vraiment ça boo xam ne dinañ ci mën a dund ñun ñëpp ñu génn ci yooyu. je pense que autant y pas y pas cet aspect financier. je pense que passion parce que pour vous benn anecdote même par exemple suñu premier album. Mhm. pour ñu def ko dañ doon jël clavier bi yenn ko quoi. <laughs> clavier dañ ko doon yenn mm. dem ba studio. teg ko foofu pour jouer ay son. donc booy ñoom dañ ñoo fekk lépp taxaw quoi. studio yàlla ñun autant y avait pas ça. Parce que si on relate aussi l'histoire de Youssou Ndour c'est pareil. Voilà. Euh, Youssou Ndour euh, peut-être léegi la mm-hmm. musique faillit mais autant. moom ak euh, troubam ñoom Mbaye Dièye Faye mais dañ doon galéré carrément pour voilà mais peut-être porte yi ñu leen ubbil donc ils en ont profité pour se de la les voyages à l'international mais juste bon une dernière question voix est-ce que voix bi mooy fii ba léegi mm-hmm. bon je sais pas Mata <laughs> je sais pas mais juste le français salut Mata je ne me rappelle même plus <laughs> je ne me rappelle même plus je fais beaucoup plus vidéo maintenant. la vidéo d'accord d'accord d'accord d'accord. mais peut-être je vais retravailler pour le science mais moi je faisais beaucoup plus le rap. le rap d'accord. donc c'est tonton Mac moo doon def suul yi. te que ma tey bépp nga ñëw rap. je pense ah bés bu yàlla sax muy dund di baax di saag mi muy xam nga je. <laughs> moo ngi fi di sàcc di bàq ñu may dàq du ma xam bu ne lu may dundal ndax lu may dundee sàcc jàngal nañ ma waaw ma ay si yàgg la je parle 96 mais ça fait plaisir quand même sama jabar bu ko gisee naan bul rab de. Eh. nañoo e eh, il faut que ñu essayer réunir le public du rab c'est très important bu américain lu ñu def ba gën cee génn c'est parce qu'ils ont unifié le public. du hip hop ñoom nag ils se font beaucoup de clash beaucoup de xeex beaucoup de xuloo beaucoup de trucs donc dañuy diversifier nit ñi. bu ñu amoon cent mille yoroon jënd benn album Ngaaka par exemple du ñu am cent mille dix mille lay am parce que keneen ki dafa xuloog moom son ami ne va pas l'acheter waaw donc bu ñu essayé ba def benn unifié ce serait bien pour eux. Euh, juste euh, tey ñu xool euh, de l'époque ay Pifouas. Pifouas et ainsi de suite Daara J ainsi de suite ñooñu en fait c'était c'était c'était du rap pur et les paroles c'était des enseignements. donc ci doon jàng ci paroles yi. mais peut-être on voit aujourd'hui le le aujourd'hui mélodie et c'est des clashs. c'est et autres on voit aujourd'hui un un plus euh, l'autre là. Mm. Ah, euh, Akhlou Brick je sais pas. Ah, euh, on voit on voit y a un clash. c'est benn son mais c'est des paroles c'est des paroles nit ñi si dégg di si jàng mais pas des clashs des insultes et autres.

Voilà. C'est ce qui un peu peut-être ci booy. peut-être ci booy effectivement. voilà mais mais docteur euh, comme comme mm. benn genre créé benn école par exemple comme yéen am ngeen ay euh, ay mos yàgg ngeen ci affaire bi. Mm-hmm. te nee nga aussi da ngay produire aussi ay séries et tout ça. Mm-hmm. boo ci boole woon par exemple comme yi nga xam ne dañuy euh, bëgg nañ percer vraiment ci milieu média bi et tout ça mm-hmm. nga am ay ñu nga ñuy. former tout ça comme des présentatrices wala soit des acteurs des acteurs des actrices mhm. parce que fii nii am na ñu nga xam ne nekk nañ fi ñu fay te dafa doy dafa dafa da ngay joxe sa xaalis. mais insertion bi am loo xam yow yàgg nga ci kii bi. yaakaaroon daal euh, mun nga ñu defal faveur boobu. non man dama leen di remercier sax euh, parce que bi mu ñëwee il m'avait donné l'idée. parce que man maa ngi doon depuis une semaine. lan laay def waa fan ngeen jox ma idée je pense que l'école du cinéma c'est idéal. mais mais à un niveau plus supérieur quoi nga nekk ñu jàngal la domaine bi nga nekk naka nga koy mën a exceller mhm. voilà merci beaucoup encore une fois monsieur Camara docteur Mack comme mu nekkoon ci groupe suñu flaw kenn kenn dootu représenté ndax nee naa suñu mag yi suñu tata yi suñu momo yi ñoom xamoon nañ mu demee woon ndax Salimata cartonné woon na mhm. ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di ñaan aussi li nga bëgg kii créé ni yàlla ci yàlla def ndam mhm. voilà ca dañ bàyyi rek euh, moo de la fin nga tàggatoo rapidement waaw remercier ñëpp di kontaan si retour bi malgré que gis naa ne le pays c'est euh, dellu na ginnaaw de vingt ans. <laughs> entre guillemets mais bon di kontaan si li ma ñëw aussi. Mhm. di remercier di féliciter aussi mon mon ami. Mhm. Euh, Jack PDG. si mhm. entreprise bi parce qu'il a été très courageux de le faire seul. Euh, développer ko. yéen ngeen ñëw jàppale ko ci. donc je vous félicite tous en tant que vous ci liggéey bi nga xam ne yéen ko def ba pare di leen encourager pour que ngeen persévérer parce que ñeneen ñi lu ñu am yéen mën ngeen ko am juste il faut la passion et puis le travail ba pare gëm li ngeen di def surtout c'est très important mhm. je pense que ce sont les enseignements yoo xam ne moom laa ko indi mhm. ba pare di leen wax ngeen ñaanal ma ma nit si li nga xam ne <laughs> yàlla baax na je pense qu'on va se retrouver peut-être dans laajte série wala incha allah. waaw man ñëw sama émission ambiance. dañuy jël micro bi rek. kii dafa maa bëgg fecc. ok maanaam loolu bëgg nga yëngal kii tuuti maanaam mer quoi. si sa son yi xale yi ba léegi xale yi benn mot a. loolu génnee bit bi. mais kon est-ce que du ma woo tonton mu ñëwaale. voilà. incha allah voilà merci beaucoup euh, merci beaucoup docteur Mack ça a été un plaisir. Euh, partager ak yow plateau Café Show plus voilà su ko defee rek dañ leen di daal dañuy dem région de si plateau bi rapidement.